bismillahi rahmaani rahiimi lii mooy téereb sëriñ tuuba bi ñu naan muxaddamaatul amda téere bi moom la jiital ci tagg muy tagg yenent bi alayhi salaatu wassalaam fii la tàmbale wasixtu dëgërloonaa bi rabbil arsi ci ki nga xam ne mooy boroom aras di sunu boroom mi aji màgg ji nguur mi sàkk aras te boo boole juróom-ñaari suuf yépp boole juróom yaari asamaaw aras ëppe na ko ñeen fukki junni yoon kon aras lu rëy la lu màgg la lu yaatu la lu diis la lu sel la léppi aras leer la sunu boroom mi sàkk aras moomu nag man sëriñ Tuubaa ci moom lay dëgër dëgërloo siil joodi mooy boroom tab gu sell ga moom sunu boroom wala aw fi te mooy boroom njéggal ga moom sunu boroom maal Moustapha te it maa ngi ànd ñu tànn di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wallahu mi aji màgg ji nguur muxlidun aji béelal muy aji saxal lii ci man sëriñ Tuuba saf samak sell ndeysaan wasixtu dëgërloo na man sëriñ tuuba maal muxtaari ànd ak ku ka billeehi ci yàlla mi aji màgg ji nguur waxdahoo moom dong moom sunu boroom alayhi yal na wàcce ca muhammed salaamaaman yaari jàmmi sunu boroom ya bihi yàlla mi nga xam ne moo moom yaari jàmm ya àddina ak ëllëxira yal na ko wacce ci muhammad moom sunu borom moom yi nga xam ne xatma moo far laq wii samay neen man sëriñ Tuuba sama dara neenul waqaani moom sunu borom moo ma musal bihi ci darajaay rasulillahi a suu a ca mboolem ñaawteef wa lii mu nekkal ma maanaam mu defal ma ndimmal bil mu naa ci ay xéewal yu ne gàññ yu sell yu dul jeex waxaadali moom sunu boroom mu amat indi fi man sëriñ Tuubaa ixlaasan ak ngën ji sellal te bii ci darajay rasulillahi moom sunu boroom xat maa calafare sax wii samay njumte man Ahmadou Bamba wala jutu tabbina xadiman di liggéeyal rasulillahi alayhi salaatu wasalaam tabbinaa ci liggéey boobu man sëriñ Tuuba fi imtidaahi ma boole ca nag nekk ci di ko tagg di ko kañ di ko bakk moom muhammad mi nga xam ne mooy muhammadan alayhi salaatu wassalaam yal na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm yàlla mi aji màgg ji nguur salaatullahi xéewali sunu borom ya yalla bu mu dakk di ko wàcce ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam amin sunu boroom moom yi nga xam ne maa mooy ka nga xam ne saana ñoŋal na lii ñeel ma na wii samak wàll man sëriñ tuubaa ndeysaan walajtu dugg na muy tàbbi naa man di liggéeyal ko ki nga xam ne mooy muhammad fimtidaahi ma boole ca nekk ci di ko taggaale wasillati ndax kooku mooy sama ommatukaay ba ma am ngërëmal sunu borom moom Muhammad mooy sama sëriñ man sëriñ Tuuba alayhi salaamallaahi yàlla na sunu borom wàcce ca Muhammad mooma yaari musalam ya muy musal ak àddina ak goog àllaaxira amin sunu borom moom mii nga xam ne mu lii moo kowel Muhammad saa fas wi def ko muy boroom ak siiw amin wana lottu na kullu si xilmin képp kuy boroom xam-xam wasax yin ak képp kuy boroom jëf warut batin ak képp kuy boroom daraja anil Mustafa képp koo xam ne keneen kudul Mustafa lottu nga ba egg ci daraja ju màgg ji nga xam ne sunu borom jox na ko Mustafa kay ko ñu tànn di yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu ko jox ci daraja fii xulxihi mu nekk ca jikkoom moom yonent bi al aisil jikkoom jooje nga xam ne làq na ak kowe am na ak kowe ca mboolem jikko yi ñépp amul kenn ku dendanteeg moom ci jikko ak bind moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wajihun ku màggoon daraja la moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wasoolun ku daan eggale ab jaam ca yàlla la moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waasilun ab jàllukaay lawoon woon ngir amab cër fa yàlla moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bala kenn amab cër fa yàlla doon wàll yu maa nga doon leneen doon xajjab yàlla yaa ngay jaar ca kippaar ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam